dañ koy arrêté fii léegi dañ lay yóbbu directement chez toi mais nañ ko encadré ison ont des véhicules yoo xam ne mën nañ ko sécuriser encadré ko bàyyi ko ci biir otom ñu yóbbu ko Dakar bu buggee tourner ñu ne ko doo fi tourner fii yoon bi nii la da dem kii mais c'est pas ce qu'ils ont fait lu ñu doon fuyee ci otom bu dee am na ay gannaay ñoom ñoo ko xam après indi ko solution mooy lan isoler ko parce que lan la def bi ñu war ko isoler juge amul benn juge bu joxe décision pour ñu de ko léegi nag moo tax ñun ñu ànd ak askan wi ne foog ñu dem seeti Ousmane Sonko barrière yu ñu def pour tere nit ñu egg ci euh, këram ñu lever ko te li ci li ci gën a doy waar euh, Khady c'est pas les jeunes qui étaient là-bas man gis naa ci ay nit ñoo xam ne dañoo bejjaaw ñëw naan dañuy seeti Ousmane Sonko donc c'est pas une affaire de la jeunesse. maanaam les Sénégalais lambda épris de justice. non moom laa lay wax c'est-à-dire tooñ bu ñu koy tooñ ak jaay doole bu koy jaay doole benn Sénégalais rafetlu wu ko. ku ko jël ci sa bopp rek wala seen mbokk da nga xam ne kii luñ ko def du yoon. d'accord alors Pape Sané est-ce que mënuñoo xalaat ni scénario Cellou Dalein Diallo moo nar a dal ki nga xam ne Ousmane Sonko. donc ça veut dire que le Sénégal aura vraiment beaucoup régressé parce que sànq maa ngi doon waxtaan ak suma benn xarit guinéen fa laay wattoo souvent mu ne ma est-ce que duma ma dellu Guinée quoi. ma ne ko ndax lan. mu ne ma mais parce que lii laa doon vivre Guinée ba bàyyi lépp ma fa am ñëw toog Sénégal mu ne ma. parce que man la ma amoon atelier ba ma amoon wetu kër Seydou Dalen toog naa benn moment plus de sept mois mënu ma liggéey ma ne ko ndax mu ne ma parce que aw ma client mun mënati ñëw lépp parce que dañu bloqué kër Seydou Dalen du génn du ñëw njabootam ñu génn du ñu ñëw ainsi de suite. mu ne ma la on voit la même situation man ne ko mais sori nga kër Ousmane Sonko mu ne ma mais <laughs> buy tàkk day tàkk ba fii. donc c'est-à-dire que c'est un une régression euh, euh, soxna si Khady te dafa dafa neexul dafa neexul ba ci ci image yu Sénégal en fait je sais pas si euh, peut-être c'est c'est c'est mon vécu qui me fait parler Euh, parce que dama fekkee. dama am na information ñuy jox léegi aussi ne que euh, l' ancien ministre de sports euh, Matar Ba aussi manifestant yi taal nañu ay oto au nombre de six xam naa ni Issatine nga xamante moom moo nekk sur le terrain dina ci indi plus ample information ma la nga continuer rek. donc je disais c' un peu ça quoi xam nga boo fekkee un peu fekkee naa tuuti ci temps Senghor même bu dee xale xale laa woon nga fekkee temps Abdou Diouf nga fekkee temps Abdoulaye Wade. nga voyager voyager un peu en Afrique voyager un peu à travers le monde nga gis l'image que donnait le Sénégal tey jii nga ñëw ba dëkk yooyu nga xam ne boo leen foo leen doon dajee buñ ne la sénégalais la ñaari loxo dañ lay jox. mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps. oui régression bi lan moo xew ci diggante bi ba euh, Sénégal yàggul deux deux mille douze ak léegi wala deux mille onze ak léegi lan moo xew ci diggante ba ñu am régression bu mel nii ci si les libertés des uns et des autres liberté démocratique bi. en quest en fait euh, régression yi commencé na bu yàgg peut-être que on n'a pas fait beaucoup attention ñun on n'a pas fait attention. euh, j'étais en train de, de, de faire euh, un papier di xool un peu les violences politiques au Sénégal mu am benn fait bu ma ci marqué bu am solo et beaucoup de Sénégalais l'ont oublié 2006 il y a un fait extrêmement grave qui s'est produit à Fatick à l'époque président bi moo nekkoon président moo nekkoon premier ministre nekk maire de Fatick mooy les affrontements qu'il y eu avec le rassemblement de Mamoun Niass ak les gens du PDS à l'époque mm. où Macky Sall était secrétaire général national adjoint dem si yàlla Mamoun Niass Mamoun Niass ok sëñ mm. mais on se rappelle que le respon le domicile du responsable de de de, de, de du parti de Mamoun Niass dañ ko taaloon mm. à Fatick arrêté 26 de ses partisans te à l'époque les écrits sont encore là sëñ Mamoun ñas Macky Sall la accusé woon directement tuddul kenn dafa tudd directement Macky Sall donc yooyu nga ñëw un peu plus plus plus tôt ay 99 2000 ba ñuy taal fii Kër mbay Jacques Diop entre les deux tours affaire yi di ñëw ñu ñëw les émeutes de l'électricité ñu ñëw 23 juin ñu ñëw ainsi de suite ainsi de suite le troisième mandat c'est-à-dire que on n'a pas vu venir c'est-à-dire dañ doon. colmater rek situation bu ñëw rek ñu gérer taf yëngal avancé on n'a pas pris des décisions. mu ñoo gis les signes alerte. non gis nañ ko mais bu ñëwee dañuy efa dañuy pousse rek mu fay ñu continuer. Mhm. mais jëluñu solution drastique pour freiner ko léegi nag. problème bi mooy cette histoire là bi nga xam ne tey jii moo nekk di susciter cette violence moi je trouve que au delà de l' affaire Sonko Adji Sarr au delà de l' affaire Sonko Mame benn affaire rek moo nekk di boxal ba xaw ma boyal xolu sénégalais mooy cette histoire de troisième mandat gis nga bu leeroon léegi léegi léegi léegi léegi non je suis sûr et certain que je suis sûr et certain que même bu dee daan am ay manifestation sur l'affaire Sonko nangam sangam mais du am ampleur yi mais les gens sont en train de se dire que il des choix qui sont en train d'être effectués il des choses yi nga xam ne ñu ngi koy def te loolu ça fa à l'encontre de nos choix nous. moo tax keroog Thierno Diop dafa wax lu am solo ne pour rendre à la justice ses ses ses lettres de noblesse président li mu waroon njëkk def ci la dialogue national bi mooy maa leen woo mais solennellement je vous dis que je suis pas candidat à une élection je je ne suis pas candidat à un troisième mandat. ku yow boo xooloon rek coow li day dee. xoolal quatre-vingt pour cent de la bulle dana dana dégonflé wu léegi nag ñu ñëw xool sur l'éligibilité ou la non éligibilité de de de certains xool l'affaire sur euh, le parrainage c'est-à-dire y a des trucs nga xam ne consensuellement les Sénégalais sont assez forts pour trouver des solutions Moustapha Diop le rappelle souvent rey nañ fi un juge constitutionnel mais les gens sont retrouvés autour de quelque chose rey nañ fi des policiers les gens sont retrouvés autour de quelque chose c'est-à-dire le Sénégalais mais il y avait pas 17 euh, morts pour ne pas dire euh, il y avait pas 14 morts après mu amaat yeneen morts ci ay manifestants boobu benn nit la ñu reyoon même su fekkee juge la ce contexte bokk na. waaw mais contexte bi bokkul certainement mais attends quand on va jusqu'à tuer un juge constitutionnel mais c'est vrai que 17 vies. une vaut une vie vaut une vie. Non. mais. quand même un juge constitutionnel un arbitre du jeu électoral bu ñu demee ba buum ko euh, dans d'autres pays euh, si ñu detee les ressorts euh, de la société sénégalaise dans d'autres pays da doon tàkk alors dafay dafay dafay rejoindre li ngay waxoon rek y a pas sanction est looloo tax cette fois-ci mu amaat chaque fois bu amee ay bavure y a pas de sanction donc ñu bàyyi fënaxal yëf fii mu continuer de comme d'année en année est-ce que looloo tax bavure di persister aussi. mais les bavures dañuy persister parce que déjà fii la ñu fekk bi ñuy toog fii ci plateau yi di ko wax c'est-à-dire que dès l'instant où on a accepté d'enterrer des gens sans autopsie j'ai dit que on était en d'ouvrir des des des, des dangereux parce que gis nga nit ki lu mu ñàkk ñàkk lu mu metti metti mais nga xamal ko nag sama do sa doom lii ko rey mooy benn. su la neexee nga saisir yoon mais ñun lu ñu gënal ñun état nañ ko waxtaanee cest yooyu day defar mbir. gis nga tu vois pour quoi pourquoi l'affaire du Joola là c'est le naufrage du pour quoi bal tey jii ça reste ancré dans la tête de beaucoup de gens c'est pas parce que a dédommagé non dédommagement bi ça n'a rien réglé ça règle juste wàccee na pendant quelque mois wàccee na euh, colère bi mais c'est cette soif de justice cest soif de voir le coupable. Mhm. gis nga le fait de ne pas désigner de coupable dans ce genre de truc. ñu bari ñu def seen dëy. mooy mooy jur nag ce type de situation. d'accord bon euh, là commence à faire trop on parle de 17 on parle de 20. Mhm. et chaque fois suñu ne Ousmane Sonko Adji Sarr nit de mais attends on va où dans ce pays. d'accord d'ici quelques heures nan nga gisee situation bi fii à Dakar. pour na pas dire un peu partout euh, dans les autres régions. oui xam nga xam nga li gën a nekk euh, lu doy waar ci nguur gi. Mhm. mooy que tey jii jàmmarloo bi mujj nekk victoire manifestant yi naan léegi dañoo libérer Ousmane Sonko loolu gàcce lay doon ci ñoom te mën na nekk c'est-à-dire que force de l'ordre di dem bay submergé wu par les finalement ñu obligé reculer tijji barrières yi. bu boobaa dañu naan askan wi moo libéré Ousmane Sonko et je du doon lu baax ci Macky Sall man dama jàpp ne tey jii dara mënul justifier li tax mu isolé Ousmane sonk ci biir këram ne kenn du fa dugg kenn du fa génn ak lan moo ko fi jar est-ce que pour autant war nañu continuer di vivre lu ñuy vivre nii en tout cas journée bi tey ay nit di ci jàq seen di ci seen seen alal ay bon ama dëgg guñu euh, bakkan bu ñu faat ñuy tey ay ku mel ni Alioune Sané di ko dugal kaso est-ce que jar na ko. mais est-ce que aussi solution la les manifestants toutefois di dem di attaquer la maison des autorités di taal seen seen oto yeeg yooyu noonu. mais est-ce que loolu aussi c'est xam nga xam nga yàq moom kenn mënu koo valider. mais c'est parti dou c'est-à-dire que dañu naan boo doxee boo euh, foqatee xaw ma euh, bool xool bul xool fi nga daanu mais xoolal fan nga fan la problème bi rek donc où est-ce que d'où est-ce que c'est venu waxuma jàpp bu ñu jàpp Ousmane ko démb. jëlee ko ci otom parce que en réalité humiliation lañ ci doon wut lu tax parce que ñoom bi ñu koy bloqué au niveau de euh, Diaobé mu nax leen moom mu génn dem defi meeting bi à à à à Vélingara mais ça leur est la gorge. ñu ne lii warul woon nekk. parce que moom daf leen bàyyi foofu ñoom yaakaar nañ ko bloqué moom mu wut ay pexem dem Vélingara def fa meeting ba pare meeting bi ba bi mais loolu. bu ñu eggee à ce niveau là c'est tey ñoom ñoo wut affaire boobu parce que comme ni ma waxee da ngay def déclaration li ma def déclaration mais Ousmane Sonko def na déclaration damay damay ñibbi ci saa si bu ministre bi ne mënoo ñibbi nii naan da ngay def ay say caravane parce que laajuloo autorisation bu boobaa nag bu ko Ousmane ko defee ñu ne ko yaa tooñ parce que kon dafa bëggoon rebrousser chemin delluwaat Ziguinchor wala mu wut beneen pexe parce que dafa ne non seulement damay ñibbi Dakar yoon bi laay jël mais fépp foo xam ne fekk naa fa ay mbo fekk naa fa mbooloo naa taxaw saafoonteeg ñoom xam nga loolu la wax. Mhm. si saa si bu ministre bi génnee euh, euh, communiqué ne ko dégg naa ne da ngay traverser telle et telle et telle localité te laajoo fa autorisation naa la xamal ne solon tel loi mu cité ko yow amoo droit def loolu bu boobaa nag dañu kii mais dañu seetaan bu ñu seetaanee nag te en fait kii ñibbi. taxawul deful meeting deful dara dafay ñibbi bu nit ñi génnee mu saafoonte ak ñoom mu continuer yaa xayti lan moo ciy problème donc en réalité ñoom ñëw bu problème amee ñoom ñoo ko amplifier te dama ragal nag mu ëpp ëpp ñu loxo ba tax na man l'appel bu may lancé commencé ko ci Macky Sall ak nguuram mooy ñu jël yëf yi teg ko ci suuf parce que quand même Sénégal ñu ni neen lañu y a pas entre nous xëy na ay adversaires politiques lañu wuy moom dafa am nu muy doxalee réew mi ñun gisewuñu ko noonu ànduñu ak moom mais c'est pas une raison pour que mu cherche tout tout tout le temps à humilier les gens na bu ko defee jant ça peut passer. mais Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui au Sénégal situation bi ñu nekk nii conférence de leader yan plan d'action ngeen nar a teg en place ñun teggiwuñu suñu tànk tey jii bu ñu mënul gis Ousmane Sonko parce que dañ ko bëgg a seeti bu ñu ko mënul gis bu soobee yàlla bu subaa également dinañ demaat delluwaat foofu. ba keroog ñuy mën a gis Ousmane Sonko waxtaan ak moom. d'accord alors on nous fait signe du euh, Mamadou Dieye mi ngi en ligne euh, Dieye yaa ngi may dégg. alors dégg euh, Mamadou Dieye alors Mamadou Dieye apparemment dafa mel ni dégguñu. Dieye su fekkee yaa ngi may dégg rek euh, yaa ngi en direct ci édition du soir alors Pape Sané en attendant moom du Dieye ñu koy am en direct euh, ce qui s'est passé hier am na benn fait boo xamante ne aussi ñu bari bàyyi ci xel mooy des vidéos ak euh, benn photo loo xam ne c'est devenu viral est-ce que force de l'ordre euh, yi ñoo euh, xamante ñoom ñoo arrêté Ousmane Sonko ñoo jël photo yi wala euh, une tierce personne une tierce personne mu ko wax rek parce que moom mën na leen beneen mënuma leneen lu ma wax ne ñoom rek a nekkoon ci oto bi la photo bi nga xam ne c'est devenu viral sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux ba ñu bari wax nañu c'était une volonté de de l'humilier bon xam naa ne que une tierce personne dugg ba ci biir blindé gendarmerie di fa jël photo ça va être quand même très compliqué à expliquer mais une chose est mooy que actuellement la euh, partout dans le monde les service de police et de gendarmerie pour éviter ay problèmes ay poursuites et tout à chaque fois qu'il y des arrestations elles sont obligées de les documenter à travers des video mmh. c'est-à-dire loolu c'est pour éviter bu suba monsieur Diante ne no bi ñu may jàpp dañ ma doon dóor dañu ma def lii ak lii donc loolu ñoom dañ koy def mhm. Euh, je sais pas encore si Sénégal c'est réglementé. Mhm. mais je sais que dañ koy def ñu ngi koy def mais je sais pas s'il y a le cadre réglementaire euh, c'est réglementé. Mhm. mooy que voilà dañ leen di doter de caméras euh, et tout yi nga xam ne portative yi nga xam ne à chaque fois qu'elles sont en opération. Mhm. dañuy filmer pour bu subaa bu coow amee ñu mën a ñëw prouver ni que non y avait ça ou y avait pas ça mais maintenant que euh, qu'on voit des photos une vidéo virale. euh, de Ousmane Sonko dans un blindé de mhm. la gendarmerie euh, gis ko également euh, en toute l'opération nu mu déroulé mhm. et on le voit après dans les réseaux sociaux mhm. ça pose sérieusement un problème Euh, je je n'accuse personne. mais est-ce que du bu ñenn ñi partisans Sonko hmm. de l'humilier. oui l'instant où dès l'instant où la première page qui a eu à publier les les les photos dañu jàpp ni que page boobu c' est une page qui est foncièrement contre ceux de Pastef qui est foncièrement contre Ousmane Sonko. Mm donc bu ñu gisee ni que moom moo am la primeur euh, de ces images donc dañuy jàpp ni que kon kii euh, le fait que mu jot ko génne ko ça est pas anodin c' est quelque chose qui a été calculé bien calculé moo tax. Mhm. mais en tout cas une chose sur mooy moi je dis en je dis dit d' ailleurs hier bu dee c' pour l'humilier je dis c'est irresponsable parce que le fait que ces images soient diffusées ça heurte la conscience de beaucoup de gens mooy benn et ça produit l'effet contraire mooy que euh, dafa jur jur benn comme ni nga ko waxee ci sa question dafa jur benn frustration gars yi ne kon lii certainement waa nguur gi ñoo ko def Euh, du Walf moo ko génnee du TFM moo ko génnee du Sen TV du Seneweb du kii moo ko génnee mais c'est un profil bi nga xam ne dañ jàpp ne que c'est un profil contre hyper contre Sonko moo ko génnee donc à partir de ce moment ça amène les gens à se braquer moo tax dama ne quelque part bi ñu koy def moi à mon avis j'ai dit que c'était pas réfléchi et que ça pouvait être source de provocation et la preuve ça a permis à partir de minuit Euh, de voir certaines escarmouches un peu partout dans Dakar. Mhm. donc loolu je crois que ça ne relève pas de la responsabilité de l'État bu dee ñoom ñoo ko def. ça ne relève pas de leur responsabilité. ay station bonne image la mën a l'image du Sénégal nga xamante sur le plan international la presse internationale fan yëpp ñu ngi fees dell à Dakar alors avec depuis le procès euh, Sweet Beauté ak arrestation bi nii est-ce que mën nañu wax fu mu toll nii. l'image du Sénégal à l'extérieur pour ñu defaat que ce sera très difficile. non c'est pas difficile et il faut pas parler d'arrestation non je, dis pas arrestation maanaam je veux dire bunkerisé <laughs> la ñu bunkerisé dama juum c'est c'est un <laughs> encadrement. lapsus là non non c'est un encadrement. selon le ministre de l'Intérieur. voilà on l'a pris sur le fait de violer la loi euh, mu dañ ko jël rek encadré ko euh, yóbbu ko këram bon euh, mais on adversaire euh, politique boo xam ne mën nañu ne c'est le chef de l'opposition d'après ses partisans bi nga xamante ne dafa am ay démêlés avec la justice plus depuis le début de l'année chaque fois chaque quinze jours mi ngi dem tribunal di répondre procès bi ça fait même pas une semaine ñu bunkeriser këram arrêté ko dans ces conditions ban image lay renvoyer sur le plan international bunkeriser bi nag c'est bunkeriser bi nag moo métti parce que bunkeriser bi c'est ce que les gens voient c'est les scènes aujourd'hui là yii nii c'est ça en fait qui nourrit l'information ici au Sénégal qui nourrit l'actualité ailleurs donc les gens traitent ça et les gens sont en train de se poser les mêmes questions qu'on se pose comment le Sénégal a pu en arriver là d'accord Mamadou Dieng est en direct Mamadou Dieng maa ngi lay nuyu voilà donc Khady Sylla euh, ñu la lay euh, nuyu bu baax comme li nga xamee rek euh, ginnaaw ba ñu jógee fi nga xamante ne moom mooy station Liberté 6 foofu nag manifestants yi ñoom ñoo fa ñëwoon pour attaquer li nga xamante ne moom mooy station bi. mën na yëkkati baat bu baax baax ñoom Saliou Bey Khadija Pia l'équipe technique alors retour bi on n'entend rien. Mhm. li ma ci gën a metti soxna si. Mhm. c'est c'est-à-dire moi quand j'ai vu l'image de sëñ Abdou Mbacké tey si suba. waaw. c'est-à-dire un être inoffensif. quelqu'un bi nga xam ne Sénégal mënoon na ko sax utiliser l'État mënoon na ko utiliser pour xëy na. mu dugg gis Sonko rassurer ses rassurer partisans ses partisans qu'il va bien. voilà très bien c'est-à-dire euh, très, euh, tu as trouvé les mots qu'il fallait c'est-à-dire que tey jii je me suis dit que l'État avait la chance avec sëñ Abdou Mbacké bàyyi ko mu dugg génn. photo wu ak Ousmane dugal ko ci réseau sociaux yi xamal la ne que Ousmane va bien Ousmane nee na lii Ousmane nee na lële mais vraiment euh, gis kilifa googu. ak tout ce qu'il a eu à jouer parce que les gens pensent que. allo 2021 la Abdou sëñ Abdou Mbacké nekk ci ci ci mbiru dox ci mbirum ku jéegeeg pouvoir. Mhm. yàgg na ci dox maa ngi fàttelu keroog fii ne que diggante PDS ak Macky ndéem ni mu amoon ay xarit ci PDS nii Abdoulaye Wade nekkee woon xaritam mais ba mu jàppee ni que Macky dañ ko tooñ mm-hmm. dafa dem ànd ak Macky Sall pas ànd jàppale ko mais ànd ak moom wanee ni que dañ la tooñ ba li nga xam ne moo doon euh, congrès d'investiture APR fële ci fële nu mu tuuti cap ah, plage yu Yoofu Jàmmalaay bi moom moo ñëw def ñaan moo ko ubbi ah boo il était très proche du président mais c'est un gis nga papam Baye Cheikh Khady ñi mu ngi may dégg waa Daaru Musi ñi ngi may dégg waa APR ñi ngi dégg néegam boobu ba euh, kaasam boobu néegu ñaxam boobu mm-hmm. teral na fa Macky Sall guddi teral na fa Macky Sall bëccëg moom Macky Sall rek amoon Baye Cheikh retiré wu nekk ci àll ba. waaw moom ni ñu euh, ngi ñëwaat yow is euh, dafa mel ni Mamadou Dieye cette fois ci mi ngi ñuy dégg-dégg bi neex na yaa ngi may dégg. voilà donc xarit. Euh, fan ga nekk bon ñu ngi fii nii si euh, rond point xar yàlla ci station bi juste rek. Mhm. foofu lañ euh, nekk nag foofu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci rond point 6. ñoom ñoo fa jógee ñëw nag daal di euh, taal ci kanamu station bi on peut dire heureusement parce que attaqué wuñu euh, euh, entièrement li nga xamante ne moom mooy station bi mais juste dañoo ñëw ci kanamu station bi ñu daal di fi taal ñu ko def nag mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee woon ci station Liberté 6 parce que station Liberté 6 aussi les manifestants ont profité de l'absence des forces de l'ordre pour que ñu attaqué station bi jam nañ ba jël sax li nga xamante ne ay taabul taal ko pour dugal ko fi nga xamante ne foofu la essence bi di génnee mais heureusement force de l'ordre yi dañoo teel a ñëw ba ñu ñëwee léegi ci ñoom si nañ daw ba ñuy dawee tamit ci la ñëwee fii nga xamante ne moom mooy euh, si rond point xaar yàlla taal fi également doogay daal di mën a euh, continuer tamit seen daw mais on peut dire heureusement am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo engagé wu di fay lakk-lakk yi nga xamante ne moom moo nekkee ci allée Liberté 6 fi ne moom mooy euh, si mooy euh, xaar yàlla donc actuellement nag manifestation yi daw nañ mais lu ñu ci a wax moom mooy effectif bi mooy force de bi ñoom dañoo insuffisante par rapport ak manifestant yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëwoon heureusement nag am na yoo xamante ne euh, ba leen manifestant yi séenee rek na ba ñu séenee oto bi nañ daw mais sinon kon day xaw a gënoon a pire li nga xamante ne moom nañ assisté mais pour l'instant li ñu mën a wax moom mooy euh, wàññi li nga xamante bu baax moom moo fi amoon moo moo fi amoon yëpp am na ñoo ne ñoom ñoo ñëw xawma nag ba xam bu naax turam mooy dof nday ak ay équipe am ñoom ñoo engagé wu pour fay lépp li nga xamante ne manifestant yi taal nañ ko voilà donc xadis la la situation actuelle ici au rond point xaar yàlla donc loo xam ne moom nañ mën a waxagum jërëjëf Mamadou Dieye euh, un peu partout suñu reporter ñi ngi ñi ngi ci terrain bi alors li ñu li ñuy dégg ni information fu mu daanale dalul xel mel ni léegi yëf yaa ngi commencé dégénérer un peu partout c'était euh, c'était Keur Gorgui mais mi ngi commencé gis ay yeneen foyer fële ca Cambérène Pape Maguette bi ñu doon wax léegi nii rond-point Liberté nga xam ne euh, soriwul bu baax ak Walfadjri kon fu mu toll nii ak guddi gi di dem xel yëpp ñu ngi commencé teey tiitaange baa ngi commencé mi commencé maanaam liy xeeñ daal neexul en grosso xadi mm-hmm. mm-hmm. xadi gis nga damay ñaan rek damay ñaan yàlla encore di ñaan kii nga xam ne eh, mooy président la république parce que moom rek nañu mën a ñaan man buy gars yi dinaan li yéeg li yéeg li je dis que le seul qui peut régler le problème actuellement mooy président Macky Sall. waaw ah, c'est le chef suprême. du gendarmerie du police du général Moussa Fall du euh, Seydou Bokar Yàgg c'est le président de la République. oui dañuy teg coom est-ce que tey jii. moom kese mu lancer un appel te xam naa ne que il a les canaux nécessaires comme ni ko Ablaye Wade amee woon comme ni que Senghor amee woon comme ni que Abdou Diouf amee pour wax dama jàpp nag benn mbir. mais il n'est pas dem na ci investiture. waaw mais même à distance même à distance il gère il gère le pays. dama dama jàpp nag benn mbir euh, soxna soxna si. Euh, na ma ñëw nañ nañ ma baal. Mhm. dama jàpp ni que quand abdu juuf bi mu demee ba découvrir ni que dafa amoon au sein de son entourage ñi nga xam ne mosuñu bëgg mu wax ak Ablaye Wade et que ñooñu musiba yi doon am ci dëkk bi yëpp ñooñu ñoo ko doon nourrir parce que ñooñu ñu ci bëri. ñoo doon ñëw di xamb naan ko Ablaye Wade da lay rey bugg la ba kii ba pare dem ci ab Ablaye Ablaye Wade naan ko Abdou Diouf bu la jekk wa rey la. ñooñu allé jusqu'au boutiste. gis nga ñooñu dama yaakaar nag ci jamono yi ni nekk dafa am ñi nga xam ne ñu ngi diggante Ousmane sonk ak diggante Ablaye Wade euh, diggante Macky Sall. di xamb taal bu ñëwee toog ci Macky Sall ne ko moytul booy bi de booy bii bu ñu demee toog ci booy bi ne ko waa ji da lay tëj te dana la yàq. man samay yaakaar cest à bu ma defee un peu de, de réflexion par rapport ak Ablaye euh, Ablaye Wade ak Abdou Diouf lu ñu dund ba il a fallu kii nga xam ne mooy Famara Sagna dox dox ba ñoom ñaar ñu toog jour bi ñu toogee maa ngi koy fàttaliku bi Ablaye Wade génnee dafa ne je viens de découvrir le véritable visage de Abdou Diouf avec lui on a discuté de tout avec un grand T. E. mais li nga wax wax nga ko léegi léegi avec lui on a discuté de tout mais discussion boobu la ñu nemmeeku ne moo amul instant yi entre le président Macky Sall ak Ousmane Sonko. mais moo tax ma ne la est-ce que lii nga xam ne lii nga xam ne moo amoon diggante Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ay nit di toog nekk ci diggante bi bu ñu demee ci Abdoulaye Wade ne ko waa ji moom tëj la rek la bëgg rey la dem ci Abdou Diouf ne ko non waa ji li yëg lii yëg lii est-ce tey jii ces deux là les mastodontes de la scène politique. ñaar ñi il faut le dire Ousmane Sonko ab euh, Macky Sall ce sont les mastodontes de la scène politique. Mhm. est-ce que tey jii lii nga xam ne Abdou Diouf syndrome bi mu doon dund. ak Ablaye Wade est-ce que tey jii président Macky Sall nekkul ak Ousmane Sonko nekk ñu dund le même syndrome. Mhm. mooy maanaam amuñu kenn ka nga xam ne bu jógee fii wax jóg dem fële wax jëlee fële indi ainsi de suite moo tax ma ne aujourd'hui y a le président et je suis sûr et certain qu'il a les canaux nécessaires. canaux nécessaires waxuma pour mu wax ak Ousmane Sonko waxuma pour mais il a les canaux pour que ce pays-là revienne à la paix. d'accord pour ce pays revient à la paix est-ce que suñuy anciens présidents aussi n'ont pas failli parce que genre situation yi dañoo nem ak ci dëkk yu bari les anciens présidents yi nga xam ne ñu ngi dund ko mel ne le président euh, Abdou Abdou Diouf Abdoulaye Wade war nañ ci jouer benn rôle boo xamante pour la stabilité du pays jéem a teg ñoom ñaar ñëpp seen i doom waxtaan ak ñoom parce que fii nii ñuy dem nii on va droit au mur. oui normalement on peut s'attendre à que ancien président yi mën a mën a intervenir mais Abdou Diouf lan lañ dégg ba mu jógee fii nee na moom lépp lu jëm ci politique Sénégal moom doo dootu ci wax dégg nañ ko même bu dee peut-être am na ay kii yoo xam ne dañu jàpp ne moom moo koy xelal Macky Sall. non c'est c'est c'est les gens qui disent mais kenn déggul ba léegi moom mu wax ko moom wax ko waaw d'accord bon Abdoulaye Wade oui Abdoulaye Wade mën na wax mais Abdoulaye Wade ci moom lañ njëkk jaar du moom lañ jëloon doomam bi tëj ko fi ba pare exilé ko donc aujourd'hui c'est Macky Sall dama dama gis-gis moo def le vide autour de lui te moom moo yore mbir mi man dama jàpp ne gis nga euh, Sénégal